ba pare daal di ni ma bind dee bind dund ngir ma nattu kan ci yéen moom moo gën a rafet aw jëf ci kaw suuf am loo xam ne yëfi boppam la mais am loo xam ne ñun nit ñi ñooy natt jëf joojale jëf jooju nag Mandela nekke woon ci kaw suuf ba téeméeri chef de d'état dem fekkee ko moom la ñu bëgg tey ñu waxtaan ci pour xool ñun nuñ ciy jëlee ay ay bind. waaw ñi nga xam nii ñoom la ñu àndal ci waxtaan wi ki may jëkk présenté mooy. Imam Baye Niang moom député la ci assemblée nationale qui topp ci Imam Baye Niang du maître Mohamed Kébé mon avocat ici ci Dakar suñu càmmoñ Abdoulatif Latif xam ngeen ko ministre de la bonne gouvernance du porte-parole du gouvernement bi moom ngeen di seen ni ki topp ci moom di suñu Fatou Diagne Senghor moom mi ngi représenté mouvement bu article 19 dinañu wax sax ci kanam lan la article 19 parce que mouvement la ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di leen imam imam fi Sénégal bi ñu annoncé Nelson Mandela dafa melni ñu ngi won Afrique du Sud wax ko ci émission français bu jall Nous ñepp ko xam même élèves yi nga xam ñu ngi ci école parce que ci une cahier ko ci histoire leen ko yow naka nga pourquoi ñu yëgee ko Sénégal euh, maa ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm Omar yaa ak sa Aziz di nuyu ñi nga xamante ne bi ñoom laa bokkal émission bi di ci monsieur le ministre de la bonne gouvernance ak euh, madame Senghor ak. Mohamed Kébé Mohamed Kébé mm. di rafetlu bu baax jataay bi xam nga nit moom li mu liggéey. Euh, alamik daf koy daf koy góob nit ki ci nekk lu mu lu mu lu mu ji rek loolu lay góob foofu la maanute yàlla nekk yàlla dafa indi nit ñi fii ci àdduna bi am lu mu leen sant pour ñu def ko te ñim fi indi bari lool lu yàlla bind dafa bari nit dong nag la ci sant ni ko defal ba pare comme ni ko Abdoul yi waxe léegi dinañ la évaluer ci jëf jooju ngay jëf muy responsabilité bu mak jëf jooju yépp nag defar la wara doon c'est-à-dire nit amul droit naik fi ci suuf si di fi yàq defar nag mooy andil nit ñi njariñ indil leen mbaax fexe ba dundu gi ñuy dund nekk dund ku yaxan waaw loolu yàlla bi mu ko sante nit itam dafa am lu ko jox loo xam ne ñeneen ñi parce que ñeneen ñi amuñu responsabilité lol mu ko jox daf ko jox xel jox ko xol muy yëg di sentir responsabilité am nekk ci nga mën def lu baax mën def lu bon lol la ko yàlla waxee wa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit am na possibilité ci volonté mu def li muy lu baax mu def li muy lu bon léegi nattu bi mooy nga bàyyi lu bon li di def lu baax li loolu moom pour nga man ko def itam njumtuwaay yi am muñ am na dépassement am na bëgg yemale nit ñi bañ a tooñ générosité bon yooyu yëpp nag ku ci góor góorgóorlu ba mel ci nenn ni ba dépassé ci nit ñi da ngay dem ba euh, nekk ci xolu doomu aadama yi. te Mandela noonu la doxalee. Mandela noonu la def Mandela euh, problème bi mu réglé nit ñi jàppoon na ni. kenn du ko mën a régler kenn du ko mën a régler wala imaam waaw imaam dinaa dellusiwaat ci ci ci wax jooju parce que suñu émission bi foofu lañ koy junj mhm. ma bëgg a euh, jox kàddu gi Abdou Latif Coulibaly di ko laaj euh, ndaxte moom li ñuy wax naan jeune la ministre bu jeune la <laughs> màggetagul noonu amagul at yi macha allah ñu ngi ñaan yàlla may ko loolu. waaye dafa am benn illustration bu bëgg a def ba mu bëgg def ak moom parce que dafa bokk ci benn génération. yow kañ nga xam Nelson Mandela kañ nga xàmmee ku ni xam nga ko.

amadou gay soleil mu may dégg li may wax mën na finde don publier déclaration bi nga xam ne la mandela defoon bañ koy atte ci dëkk ba ñuy wax rivonia pour yóbbu ko robben ayel soleil daf ko publier lépp déclaration boobu ay fani fan mu koy jang di ko jàng gis ci lu bari ci nit ki ci boppam gën a comprendre lan mooy xeexam ak lan mu wund lim def boobu nag laa dem gën a gëstu gën a xam histoire Afrique du Sud lëkkale ko histoire coloniale boo xam boo nekkee étudiant rek sa nawle yi bu ñu tuddee dara yooyu da nga koy bëgg a xam surtout discussion yi daan am ci amphithéâtre yi dafa daan discussion yoo xam ne boo ci xamuloon dara yëroo ko ci livre yi da far di néew doole melal di ñàkk sax fay la loolu bokk na ci li nga xam ne genn mu poussé ma dem di ko xool di ko gëstu waaye nag xam nga Mandela ñëpp ko mujj xam. ñëpp ko mujj xam ku jàng ku jàngatu jéem. sooy ko fii 1985. bi Abdou Diouf nekkee président en exercice am de l' organisation de l' unité mm. am na jéego yu bari defoon na ko ci ci xeexu euh, xeex apartheid. doo fàttaliku itam Léopold Sédar Senghor bokk na ci premier dirigeant africain yi nga xam ne ñoo njëkk am contact ak ay ñoo xam ne dañu taxaw ci yaram Afrique du Sud. Mm. njëkk ay tubaab di xeex apartheid Nadine Gordimer Burton Burton Bag bu ko kenn fàtte ñoo ñu bokk nañ ci figure yi nga xam ne dañu bokkoon ci xeexu tubaab yi xeetu tubaab waaye taxaw ne ne temm di xeex apartheid ñoom seen bopp ñoom daañu leen dégg Senghor di leen tudd ci ay discours am ak apartheid da xam nañ ci lu bari ba ñu nekkee étudiant wax dëgg yàlla eh, am yuñ ci jàngat yuñ ci gëstu ñu ko jàngaloo si ci université waaye bu loolu yëpp wéyee Bukul ak xam apartheid dinañ ci dik, dinañ ci dikkaat monsieur le ministre jërëjëf xam Mandela bokkul ak xam apartheid loolu dinañ ci dikkaat ci biir waxtaan wi insha allah ma jox kàddu gi Fatou Diagne Senghor moom di représentante article 19 bëgg naa mu wax ma rapidement article 19 boobu lan lu mu wundu ndax téléspectateurs yi xam ko article 19 jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant hmm. ci invitation bi xam naa ne honneur bu mag la pour ñun ñu war a wax ci Mandela mm. parce que comme li ma njëkk ñu njëkk wax li ñu wax nekkoon na koo xam ne ñu ñëpp nawoon nañ ko ku nekk ci àdduna bi tey boo sañoon yàlla dimbali la nga mel ni moom wala nga am ci jikkoom yi hmm. maa ngi remercier aussi di nuyu sama ñi ma fi toogal suñu kilifa Latif bari hmm. ministre de la bonne gouvernance nga xam ne militant boo xamante ne yàgg nañ ko xam di ko naw aussi fii ci Afrique mm-hmm. si affaire liberté d'expression bi nga xam ne ñun suñu organisation si lay yëngu ah. article 19 mm-hmm. moom organisation boo xam ne la day liggéey pour affaire liberté d'expression pour ku nekk si adduna am sañ-sañ mën a wax te doo kenn du la xoxatal jaarale ko si yoon nag waaye mën a am liberté di mën a exprimer wu te loolu dafa xaw a tumuranke si suñu dëkku Afrique yi moo tax ñu am bureau fii Sénégal nous couvrir Afrique de l'Ouest pour nous promouvoir droit à noonu nga xam ne dañu xam ne dafa dafa dafa important ah. ci yëfu yelleef ak doomu aadama maa ngi nuyu imam ah. aussi di nuyu maître Kébé hmm. imam aussi nous, na si yu bëri yoo xam ne liggéey nañ ko ak moom ci affaire parité affaire à travers accès à l'information donc vraiment je suis honoré ma bokk ci plateau bi yow def nga ñaari at euh, Afrique du Sud Euh, dafa am lu kéemaane sax parce que da nga fa jógee alxames defe naa du noonu ci ëllëg sa Nelson Mandela génn àddina nga def fa ñaari at naka nga gisee euh, réew moomu sans Mandela comme ni ñu koy waxee. jaaxal ñu bëri. Mm-hmm. waaye foog naa Mandela tam bàyyi na fa lu dëgër si ñun niñ ko gisee Mandela yàlla duma delluwaat si li ñëpp wax ba pare mais lim ko mayoon.

en travers le nombre noir bu ñu bàyyee système bi mu dox noonu ñooñu tam mën un jour ñu opprimer ñeneen donc mu créer ay institutions yoo xam ne bi ci njëkk mooy seen cour constitutionnel moo cour bi nga xam ne moo gën a dëgër ci cour àdduna yi nga xam ne mooy àtte yelleef ak aqu doomu aadama cour boobu ba pare ñu créer li ñuy wax les institutions yoo xamante ne tam dañuy sàmm ay droits sectoriels par exemple seen commission droit de l'homme bi boobu tamit commission boo xam ne la bu redoutable la bu indépendante am commission électorale boo xam ne tamit dafa indépendante donc créer na ay institutions yoo xam ne ñoo nekk les piliers bi nga xamante ne même tey jii ñu ngi jaaxle si lu bëri mais ñun am nañ yaakaar ne lim fa bâtir du gaaw a comme euh, fondement bi dëgër na daal fondement bi dëgër na te aussi leneen li si topp mooy hmm. Euh, je pense que nous sommes fierté bu Afrique du Sud bu peut ñu bëri xam les défis défis yu aussi. Ah. yu fa sur le plan économique ak autre mais bëgguñu aussi delu ginnaw daal lolu amna Mandela na bande annonce émission bi dafa am ñuma wo euh, Afrique exemple Nelson Mandela bon du

président da koy lancer même. léegi nag loolu laa bëggoon ñu dugg ci Mouhamed ma jox la kàddu gi yow avocat nga Mohamed kebe Nelson Mandela avocat la woon. wax na ni sax ay ay procès am daf ko daan transformer en meeting politique. ba nga xam ni finalement dañ ko daan ajourné lu ci bari. parce que pour déglu ko da daan defe ni meeting politique lañ nekk au lieu de procès Mohamed jox naa la kàddu gi. jërëjëf sëñ Omar maa ngi lay euh, sant di euh, am mbégte ci toog fii ak euh, monsieur le ministre ak l'honorable député ak sama collègue. Euh, li ma mën a wax ci ci loolu euh, dëgg la euh, Nelson Mandela effectivement avocat la woon nekkoon na également un militant de la justice et de la liberté te loolu daf ko fësal bi mu ci dundam yëpp bi mu nekkee militant de la liberté bi mu nekkee prison ak bi mu génnee nekk chef d'état ak bi mu génnee mandat wam mu jeex li ma mën a ngay wax soo soo seetloo ci dundam ben nous koy acté en 1964 procès de Rivonia bi euh, monsieur le ministre wax léegi daf ni man dafa am ben idéal bu ma am moy dund ci société bo xamni ni ku weex ak ku ñuul ñoy bok yam les mêmes droits lépp lu lolu laaj ci xeex ko pare naa pour def ko su jéré dé pare pour dé mu teg ci ni ci 64 jours procès boobu Rivogna mu ni tubaab bi dañu ragal ni ñun noir yi ñu amee doole di bay voté dañu leen di noot mu ne ANC ni mu ngi xeexe pour ñu bañ a noot nit ñu ñuul ñi suñ demoon ba nekk pouvoir noonu la ñuy xeexe pour que égalité am mu wax ko dem prison 64 génn prison 90 jël pouvoir 94 doxal loolu parce que bi mu toogee comme ni ko sama naataango bi waxee bokk na ci mesure yi mu njëkk a jël mooy teg wax commission vérité et réconciliation pour saytu li amoon Afrique du Sud rétablir justice rétablir égalité ci lolou la tàmbalee xamna dañ ci ñëw ci waxtaan wi mais pour firndel li nga wax ni que justice ak égalité daf ko daf ko soxlaaloon dundem yépp ci lolou la ko dox. Imam Mbaye ah defe naa justice ak égalité boo xol suñu réewu Afrique

Lalu moo tax ki ñu bind sax muy suñ borom nee na ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki ma gënul ki ma gëmul ca maandu ci nit ñi moo gënal kii ni gëm na ma ca maanduwul loolu di wone eh, importance su maandute trop bon maandute bokk na ci nga bëggal jàmm ñëpp maandute bokk na nga nga nga am pardon ci sa bir xol te loolu bu ko Mandela amul woon kon fii mu àgg tey du fi àgg ndax moom sonal nañ ko sonal askanam koo xamante ne bi tëj nañ ko kasalu mbat ñaar fukki at ak juróom-ñaar lu nekk ñu mettital ko bi mu génnee mu am ci xalaatam nit ñi ko doon mettital daleen di jéggal woote comme ni ko ñëpp waxee eh, réconciliation national nga xam ni ki weex ak ki ñuul ñoom ñëpp dañuy jàpp ni fii ñu nekk ñoo fi yam ay ay yelleef ñoo fi yam ay warugar bon loolu moo tax euh, lii mu am mu am ko te loolu itam pour mu am ko nit ku nit ku màgg la daal moom cest à nit ku màgg la ci wàllu valeur ci wàllu jikko ak li mu li nekk ci biir xolam màggaay googu moo tax mu mën a agsi fii mu agsi ci def pardon koo xamante ni bii sonal nan la sonal na nga ñëwaat euh, sa xel nekkul ci ngay fayu mm. lépp sax loo xamante ni bi jàpp nga ni suñ ko defee fayu mën naa am nga fexe ba loolu du am ci sampay institution yu dëgër woote ci nit ñi gëm la ba loolu am am naa yaakaar ni loolu euh, ñi war a gën a roy Mandela mooy africain ñoom ci seen bopp parce que ñu bari jàpp nañ ni Afrique loolu mënu fi am waaw nag moom modèle la boo xamante ni bii ñeneen ñëpp ngi dem ci moom kon ñu ñoo war a gën a yey pour roy Mandela ci loolu. instaurer la justice. maandute ak jub ci suñu réew yi pour que ñu mën a ñu mën a développer. est-ce que Afrique loolu mën na fi am question boobu dinañ ko laaj Abdou Latif balaa boobu ma jox la kàddu gi Abdou Aziz Kébé. waaw sëñ Omar euh, defe naa man li fi may dellu si rek moom mooy. Hmm. jëf. xam nga dama wax sànq ci bi may tàmbali ma ne suñu borom dafa xam ne dama bind dee bindu dund. Hmm. ngir ñu évaluer kan moo gën a rafet jëf euh, nit ñi ñoom bu ñuy évaluer kan moo gën a rafet jëf dañuy seet jëf ji jëf ji nit ki jëf jan njariñ la am ci ñoom ci seen dal ci seen jàmm ci seen jubóo euh, su ko defee li may li may yaakaar ni ñun mën nañ koo xool ci Mandela moom mooy euh, li alxuraan waxoon ni di suñu waram wax ni man duma ma sànk jëfu kenn ci yéen moo xam góor la moo xam jigéen la lu waay jëf rek dinaa ko révéler loolu dañ koy jël comme leçon njiit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Afrique man mosoon naa bind benn article euh, parenthèse bind ci ni ñun danoo danoo danoo gént maanaam notre rêve moom moo doon que Mandela bañ doon aw lépp Mandela baña doon ku singulier mais mu mujj doon loo xam ne day nekk la règle loolu lu muy tekki rek mooy lii euh, imaam doon wax léegi jëf joo xamante ni ni dafay boole jëf joo xamante ni nii dafay tegu ci maandute te njub ak maandute philosophie benn moomu ko diine benn moomu ko yàlla moo ko moom mais yàlla mi ko moom i defu ko ci ngàngu euh, naayam toog ci daf ko def ngir doomu aadama yi jëriñoo ko donc bépp doomu aadama moo xam Gandhi la moo xam euh, Mandela la tey ëllëg xëy na keneen boo xam ne njub googule moom mu nekk sa idéal euh, nga am ci exemplarité mu bañ a nekk kàddu mais mu nekk loo xam ne sa dund bis bu nekk daf koy firndeel bu ñu amoon njiit yu mel noonu le peuple bi ni ñu topé Mandela gëmé ko ko kon peuple yi dinañ topé, njiit yoyu la nonu gëmé leen ba paré jël ci ñom exemple fanani ni man loolu nonu la gisee ni mën nañ ko wé dundu Mandela en tant qu'exemple pour les leaders mais également pour les populations. pour les leaders ak population yi ma dellu ci ci question bi rek bi ma bëgg a laaj euh, monsieur le ministre. Mm. Abdou Latif Coulibaly ah, ñu bari dañ koy dañ koy ñaawtu Imam bay ñaaw wax na ko que vraiment lim nu bàyyeel moom Nelson Mandela ñun africains yi dina am difficulté pour adapter ko yow loolu lan moo ci sa xalaat. Euh, Omar suma xalaat bi bi ma ne la génnee àddina dama dama bind benn kayit euh, maa ngi ci gërëm Cheikh Thiam bu génneel ma ci soleil moo tuddee ko juróom ñaari juróom benn leçon yi nga xam Mandela bàyyil nako ko xeetu bépp nit kuy dund ci àddina man waxuma africain parce que xam naa comme lu baax la ñun africain dañ ko bëgg a akimu mais kii la ak li mu tekk ci àddinam dafa jéggi Afrique àdduna lay wax ak ak humanité ci lépp loo ci gis ci moom rek jàngat boo jàng ci nit rek soo ko méngalee ak boo demee muy Sénégal feneen di nga ko fekk kuy jëfee loolu ak kuy jëfee lu saafaanoog loolu euh, ci dundam ak ni mu nekkee comme fii nii diina ngi nay waxtaane soo xoolee ñu li ñu jàngal suñu diine mooy yàlla bala mu lay yëkkati bi wane la daf lay nattu Mandela nattu mu nga commencé ba mu juddoo Afrique du Sud waaye màggamit mu nga commencé mu Afrique du Sud li tax suñu borom def loolu su ko seetloo kam kam am xam-xam xam ngeen ko daf ko nattu ci xeetam ba mu nattoo ci xeetam nattu ko ci ci dundam moom ci parce que amna nañu fa nekk xeex nañu apartheid te defu ñaar fukki ak juróom-ñaar kaso loolu lu am la même ñi gën a ci moom kaso ñëpp gën nañ ba mu des moom kenn susulu génn na gouvernement bi ki génn na ñëpp génn nañ moom mu des ci kaso bi parce que ba muy négocier gars yi daf leen génn leen ñëpp man kenn ma des fi parce que des ci kaso bi dafa nekk loo lo ne lu wara a la filig ba yegg fa yegg parce que moo génn du baax donc am na juróom-ñaari at yoo xam ne daanaka mu ngi ci biir mu ngi négocier mu ngi dem mu ngi dox li muy dox am na benn jàngale boo xam ne dundam ak jëfam jàngale na ko man lu ma ci wax rek ci loo xam ne moo ko bind maam wax ko muñ ak fonk doomu aadama moo xam dafa ñuul moo xam dafa weex am na benn wax bu muy wax ci benn livre mu ne kër bi mu génnee kaso bi mu njëkkee génn cellule bi ñu ko tëjoon teg tànkam ci biti ak ba mu génnee ci kaso bi ci boppam nee xelam dafa daw mu xelaat lenn mu ne man su ma génnee ci kaso bi ak xol bu tàng ak mbañ nekk ci man ak coxor mbal la ma bëgga ñale lu bon ak lu loo xam ne lu saafaanoog lu baax la du ma jóge mukk ci àddina nekk seen prisonnier mu ne ba ma may dee ba day man dappet seen prisonnier lay nekk ñoom mu teg ci mu ne ñii ñu doon fa lu bon nañ jàpp ñun nit ñu ñuul ñi ne ñoom si seen bopp dañu am dignité te dañuy xeex pour seen dignité te képp doomu aadama boo xam ne danga cof ci dignitéem lu yem ni tarfatal xëy na dana jóg taxaw jaabaarloo yow te ne Afrique du Sud jaabaarloo lañ jaabaarloo boo xam ne fi mu nekk nii jaabaarloo dafi war a jeex loolu il faut que yalla def ci yow loo ngëneel goo xam ne gi moo lay won loolu suñu doo man té bo gisé loolu ñu ngi wax commission vérité bi mu nga xam mom la euh, créé en fait xalaat nako ko ci kaso bi balaa muy genn di xol yeen mécanisme lay tek ba nga xam ne bu genné Afrique du Sud li nekkoon ci xalam mu koy wax nation arc-en-ciel ñun ci wolof xol lañ koy wax nga xon buy taw da nga koy gis mu génn ci asamaan xonq wert lépp nation bu yëpp booloo nekk benn loolu daf ko xalaat daf ko théorie ci kaso bi balaa muy génn donc nekk na koo xam ne kii wax dëgg yàlla bu dee da ngay jàng bala ngay ut guide Abdou Aziz mi moom moo sawal lan mooy guide religieux ak lan mooy chef religieux ak guide religieux waaye Abdou Aziz na moo ko xam naa di nga ko firim fàncee gidd <laughs> boo ko buggee nekk ah. xoolal ci Mandela xoolal ci Mandela li ma gëm mooy guide du suutaan ba nekk ca biir église ba mm-hmm. mbala kaalaguma ga nekk ci jàkka ja dana koy wone nag waaye mën na saafaanoog moom waaye man de la boo xoolee xam ne guide a ngi foofu guide a ngi foofu waxuma euh, chef de guide laa wax faatu Fatou euh, yow comme li ma ko waxee yàgg nga foofu Latif dafa wax ci mu jëlam giid est-ce que euh, fii ci Afrique parce que bëgg naa ñu dugg ci loolu aussi bëgg naa ñu ñëw gën a suñu débat bi parce que Mandela rek daf ñu bàyyiwul ay ay ay ay fee yoo xam ne nii ak ay doxilin yoo xam ne nii boo ko seetloo fi mu ne nii ci Afrique jàdd yoon bi bari na ci man bi laa génnee àddina euh, aussitôt après ma xool li xew Centre Afrique sama xel dafa dafa ñaaw dafa tooy ma ne xoolal kii dem tey Lim daan xeex ngir continent africain mel ko 24 heures avant après ngay gis actualité bi am centre Afrique loolu loolu lu ñaaw la moo tax mu bëgg ñu méngale situation actuelle bi ak moom héritage bi mu bàyyeel Fatou. Mm-hmm. bëgg naa wax leneen tamit. Euh, mm-hmm. man de la weer bi mu dem. weer bu am solo la. ak tamit démb barke démb li ñu doon célébrer ak bés bi ñu ko doon rendre hommage muy 10 décembre ndax buñu xamé 48 lu mu signifie histoire Afrique du Sud té 48 lañ adopté woon déclaration universelle des droits humains 48 moom 65 ans déclaration bobo, année bobo, mu fi je pense que li ñëpp wax amna lu ko yalla may dina Afrique suñu ñi dem ak ñi ko xal ñi demul képp ku nekk bëgg héritage Mandela fi mu nekk nii ñëpp a kontaan nekkaat nit ku mais bu ñu xoolaatee Afrique après 50 ans d'indépendance ñu ngi doon célébrer gouvernement yi yëpp di célébrer 50 ans yi de l'Union africaine UA kii bi su thématique bi lan la Afrique fi chance comme yow Arise Africa c'est l'heure pour l'Afrique c'est l'heure pour l'Afrique Euh, mën na nekk loo xam ne peut-être ak Mandela nu mu dem nii mën na fàttaliwaat nit ñi l'essentiel delloowaat peut-être nit ku ñuul dignitéem mais dafay fekk tamit comme li ngay wax ñu pare pare pour dund ak jëfe li nga xamante ne moo jaadu je pense que Mandela lu ma si gis te loo xam ne néew na Afrique su dëkk yu bari mooy justice justice bi amu fi te xam nga dëkk bu amul justice du am paix yaa ngi wax li xew Centrafrique li xew Mali ngi nii yeneen dëkk yi ñu wër fii metti na te Mandela wane woon na depuis bu mu nekkee prison que ne dëkk bu amul justice mayiloo nit ñi ñu exprimer wu ni ñu war a exprimer woo doo mën a am justice et doo mën a am paix et doo mën a am réconciliation donc li ma si tënk daal mooy ne suñu dëkk yi euh, ñu ngi traversé ay moments yu difficile mais am une opportunité tamit pour ñu ressaisir waat euh, li ñu mandé la bayé bu avons né suñu ak ñun tamit nekk ci gouvernement bi rek mm-hmm. ku ci société civile tam am na noo ki nekk yor kërëm amna mu a ma laal rek si Mandela ak dundam li ñu wax pardon ak esprit de dépassement dafa avons te wane woon na même am na échec vie de famille am daf ko nangu ba mu assumer responsabilité yooyu xamne mom tamit en tant que père en tant que amna na présence am xeex pour deukum taxna ba famille am am na lu mu pardonné jabaram muy wini gis malgré limu def ak yi ñu fi jaar yëpp mu jëlaat ko bot ko d'accord ne xam nga nit moy def erreur je pense que lolu noonu yëpp nek na lo xam ñun suñ koy jàngat dañu naan souvent suñu dirigeants yi duñu nangu def erreur duñu nangu ne def nañ erreur bo jité toujours da ngay bëgg am raison et Mandela nañu am raison tout le temps. Hmm. je pense que l'autre man ko ci ak tamit il a montré ses faiblesses faiblesses. Hmm. na ne montré hmm. ses d'accord a si ses mënuma lepp ba paré li am solo. bi muy bayyi fekk ses bi il a ko machallah ko il a mu juste commencer xamone na ne fim Il ne montré lu mu il dina ko am mu xamné ne montré na d'accord def li dem. xajal ñeneen ñu continuer parce que loolu tamit nekk na loo xam ne war nañ ko jàng fii ci Afrique mooy ne mënuñu jeggal yëpp ah. boo commencé rek ubbi yoon bi mën nga xajal ñeneen ñu continuer li nga <laughs> liggéey loolu tam am na solo bëggoon naa continuer mais maa ngi doon wax naan bu ma jógul ci Latif dama koy delloo kàddu mais monsieur le ministre dañ lay jox kàddu gi Ousmane euh, ah. euh, dëgg la benn benn la ñu ñëpp suñu mag la da nga da nga tënk Mandela hmm. Afrique Euh, démb boo seetaanee ci télé bi euh, Barack Obama bi muy wax ba mu ne am na ñu bari ñu dajaloo si suñ biir tey fii tey di nangu ne Mandela li mu wax ak li mu jëfee ak li mu dundee lu am solo la ñu gis ci seen bopp waaye li mu wone ci jëfam ak dundam ñi fi toog am na ñu bari nanguluñ ko seen dëkk ak seen réew. ci loolu la wax. loolu yi. yi ko wane yëpp dañ ne jàkk wane Romain Mugabe président Zimbabwe way lolu pour man manipulation la mënoon nañu woné chef d'état bu nek ci aduna wax dañu wax ñu mun ko tek ci ko parce que Mandela dafa niroowul ak nit ñi té yombu la niroo li muy wane ci li ñu woné foofu moy dañ koy roy waaye mënuñu ko nek d'ailleurs waa wax nako président Zuma d'ailleurs euh, Obama aussi wax na nee kenn la unique ci wàllu jiitu réew ak wàllu njiit kenn la en tout cas ci siècle bi nga xam ne lañu Mandela dañ ko wax bu doon ña nekk tey Israël mbala gouvernement Amérique mbala occidentaux yi nangu nañ jàngale yi nga xam ne lay Mandela jàngale ci dundam konoon Palestine kenn dootul dégg ay mbiram sotti na ñu waxante dëgg kon xam nga wax ji du Afrique rek la mu ci nangu keneen nangu nekkam fonk ko yéexatu ko raaya ba ko yàlla jox nga jox ko su ci ñëpp d'accordoon tey rek wax loolu am Palestine libre nañ am nañ seen indépendance nekk fa ñu nekk réew mu ñu coloniser suñu nangu woon loola ñeneen coloniser rek dem na parce que Mandela dafa fekk kawam xeetam ñu koy noot leen dóor ay bali fetal ñuy daanu lu nekk ñu leen koy teg ci àddina mu gis ko tek ci beutam ko mais bale continuer ci la muy continuer def la muy def lolou message bi ñun rek Afrique la xéna ñun ñoo ci jitu <laughs> du ñun rek du ñun rek Mohamed waaw euh, waxtan bi bi mais dafa aspect pour man euh, importance la parce que yeen yéen de émission bi euh, xew ak man damay euh, doxalinu Mandela damay gis ci doxalinam lu mengo ak l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam sallam xoolal euh, yonent bi bi mu jógee li wax fatxu Makka mu jógee Medine di delsi à la Mecque ak doole ju bari bi mu ñëwee way ragal tit ñëpp di laqatu daf ñu da fay balé soko mengalé ak parce que mën nga considérer ni que période bi mu def prison comme exil la. dañ ko dañ ko jëlee këram. Mm-hmm. jëlee ko ci famille def ko en confinement quelque part. bi mu fa jógee ñëw na ak doole parce que bi mu jëlee pouvoir il avait l'armée la plus puissante de l'Afrique. Mm-hmm. l'une des armées les plus puissantes au monde. Mm-hmm. Afrique du Sud bari na réewu tubaab yoo xam ne leen ëpp doole. ci économie ci puissance militaire ci lépp mais dafa tek lépp ñi ñu balé nañu and nañu booloo dafa wax ci ben waxam mu ni tant que njit nanguwul talal loxom tek ko ci loxo kenen ñu and njit loolu matul njit donc man je pense que liñ ci war a en tant que humain en tant que mm. ses contemporains je ne parle pas d'africain mais kep ko xamanteni ni yang koy xol comme référence mm. mais surtout nag njiit njiite rew yi moy ñu xamni que pouvoir ak nit waroo wuñu parce que mom limu vivre moy humanité en tant que chef d'État. état bi mu chef d'État état dafa vivre humanité mu wax nit ñi également ni leen nekk nit ku yor pouvoir Le pouvoir bi fort fort fort fort C'est le peuple parce que boo doy le waxu Le peuple daf ci doon dellusi lu bari donc kooku moom faté fàttewul originam, faté ou ni doole ji mu am ci peuple bi la jógee te def leen koy delloo et je pense que lolu, c'est quelque chose que ñi nga xamante ni ñooy jiite réew war nañ ko méditer tout le temps parce que soo wul, dans ji ci peuple bi da nga ciy abusé te boo ci abusé peuple bi la koy et on a tous les exemples aujourd'hui qui nous montrent cela imam avez fait Fatou kaddu voilà euh, damay sof rek sama kaddu ci li euh, sama xarit wax Kébé ci nii euh, pouvoir ak nit loolu wat a lu mat a seetlu la hmm. c'est-à-dire am pouvoir du jàmbaarte c'est pas parce que da nga agsi ci pouvoir bi moo tax ñu jàpp ni jàmbaar nga parce que yàlla moo wax ni moom mooy joxe pouvoir donc ku agsi ci la ko jox donc jàmbaar ma ngi ci ki la jox pouvoir bi dafa bëgg mu yàlla nga exercer pouvoir bi ci image bi moom ni muy exercer pouvoir loolu mooy défi bi xam nga yàlla moo ñu bind ñun ñëpp moom àdduna bi moo ñu fi indi ñun ñëpp ñu nekk ay être yoo xamante ne bii kenn du fi moom ñu fi indi mu am yu mu digle am ñum tere boo xoolee àdduna ni muy doxe euh, xéewal yi muy jox doomu aadama yi ak euh, ni nit ñi di dundee ci jàmm ak salaam teguwul ci ñu déggal yàlla ñu bañ ko déggal c'est important cest ki topp yàlla ak ki toppul yàlla ci yenn droit yi yàlla ñoom la yemale c'est pas parce que yéen topp leen yàlla defu leen li neex yàlla que dañ leen di tegi feebar dañ leen di teg ay kii dañ boo ko dee xool sax peut du réew yi nga xamante ne bi fa la ñu gën a def du noonu maanaam naataange yi fa la ëppee. Hmm. donc loolu lay euh, vision boobu yàlla def ci pouvoir bu ko joxee nit noonu la bëgg muy xoole nekk nga président de la république bi nga ñëwee ci réew mi fekk nga fi ñoo xamante ne bi yow ñoom ñoo ànd am fi ñoo xamante ne bi ànduloo ñoom boo xësee ba nekk président de la république Sénégal rek. ñëpp nga war a yemale. waruloo faral kii waruloo faral kële te noonu ku ni mel rek yàlla yëkkati la cest à képp koo xamante ni bii am nga jikko yooyu ci bëgg a yemale doomu aadama yi dindi tooñ bëgg jàmm am ku ni mel yàlla yëkkati la bu ngeen seetoo ci àdduna bi ñi ñi ñi ñi ñi doon ñi développé xalaat yooyu yëpp Martin Luther Gandhi fii am na fi ay exemple ci wàllu même pardon

wax dëgg yàlla nag am nañ yëpp njumtuwaay. pour pour pour pour doxal jub. li may jeexal rek bala may delloo kàddu gi. mooy xam nga ñu bari li ñu xamul mooy boo xësee ba nekk ci pouvoir bi durée bi nga toog du moo am solo. mais li nga def moo moo am solo. waaw benn Mandela benn mandat la def du. kese am na ñu def ci pouvoir ñaata at ñu dem fàtte na leen problème bi du am nga am nga nekk ci vingt ans wala trente ans mais li nga def moo am solo am na am na am na koo xamante bi ci lislaam ñu ngi ko tuddee cinquième xalif rachid mooy omar ibnu abdul aziz xam nga xulafaawu rachiduna yi ñeent lan bi fi yoon bi saa sa jógee aboubacar moo ko moo ko wuutu après omar ousmane ali ñooñu la ñuy wax ne xulafaawu rachidun ci diggante bi am na ñu baree bari ñu ñëw balaa kii may tudd ñëw muy Abdoul Aziz Omar ibn Abdoul ku siiw la ku jàng histoire ul islam Abdoul xam na li may wax ku siiw la moom deux ans la def ci pouvoir bi ci ñu ngi koy jàngale fi mu nekk nii ci histoire ci màggaayu nekk gi mu nekk ci pouvoir bi ndax lu baax la mu fa def donc loolu aussi suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci lu baax nañu méditer ci loolu aussi Abdoul Aziz waaw euh, <laughs> xam naa sama mbokk yi dafa mel nii lii euh, expression bitubab di wax nan dañoo lek euh, gaynde <laughs> mais en fait euh dama bëggone delu ci ci li ministre bi doon wax sànq si euh, universalité ou valeurs parce que val li ma doon wax si table bi ni njub yalla mom mo wax si alquran ni njub njubu yalla la valeurs yi dañoo universel sank mohammed mi ngi wax di wat ci ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam man bu may xol Mandela ci ay njàngaleem bu ma koy même ci ay citation ci lu mu wax si wàllu éducation si lu wax si di boo bëggee yëg ruuxu askan da ngay xool naka la ñuy jàppee seen i gone boo gisee nañu jàppee seen gone di nga xam lan mooy seen ruux ñoom lu muy wax ci wàllu njiit nu mu war a doon naka nga war a eh, àndeek ki nga xam ne mooy sa adversaire boo bëggee liggéey ak moom boo bëggee jubook moom da ngay ànd ak moom liggéey ak moom mu mujj nekk sa partenaire boo dellee si alquran gis ko mais universalité wu valeur yooyu la defe naa ni moom la ñu war a delloo siwaat bien sûr ko ci suñu territoire mais dama doon dellu si si li ministre bi wax léegi nii par exemple Palestine euh, pourquoi Israël ñëwuñu si magal Mandela mën na am par franchise la donte ñoom nee nañu dafa seer ñëw bi dafa sew dafa cher mais c'est un jour précieux quand au fond bés boobu bés bu précieux pour pour l'humanité ñi ñëw ñëpp dafa cher ci ñoom mais parce que Mandela dafay représenter benn anti-valeur pour ñoom valeur positive bi ñuy gis ni mom la Mandela di di di di représenter ñom seen doxaline ak peuple palestinien bi comme ni ko ministre doon waxé dafa nek luy safano ak li nga peut-être même président Obama di wax fi amna fi ñu ñu fi alors que duñu ko roy donc pour man universalité valeur universelle yoy Mandela xeyna mën nañ ko jël ci suñu dello ci ko ci suñu territoire dama si indi euh, apartheid bi ñu doon wax yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa alihi xam nga apartheid dafa nekk benn système racial. Mm-hmm. en vérité toutes les injustices yi am ci àdduna bi mi tegu ci ay complexe de supériorité. Mm-hmm. bu xeet am ci weneen xeet. Mm-hmm. moo xam ku weex moo koy am ci xam arab moo koy am ci mais même ci biir xeet yi. Euh, euh, am complexe de supériorité ci njuddu sangam donc complexe de supériorité yooyu nga xam dañ ko tek ci waso wala ñu tek ko ci xet wala ñu tek ko ci ci ci ci der ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam limu li wax ak àdduna bi plan bi mu leen di tëralal di ci xex ni bu riba am parce que fay fondé wu sur un enrichissement qui n'est pas fondé sur un effort ci la doon waxee tamit nañu dindi bépp système boo xam dafa tegu ci race. Mm-hmm. dafa tegu ci waaso dafa tegu ci ci xeet. donc complexe de supériorité yooyu de ba léegi mi ngi am ci àdduna bi mi ngi am ci askan yi mi ngi am si africain mm-hmm. cela veut dire donc pour man valeur yi nga xamante ni daal gis nañ ko si Mandela. principalement c'est des valeurs de justice d'équité c'est des valeurs d'égalité loolu nag war nañ ko mën a dundalaat en tant que citoyen ñaax ci sunu ay leader surtout ci suñu biir réew yi d'accord naa ak euh, ak Latif bi ñuy wax ni euh, héritage bi du Afrique rek non lañ ci war a lañ ko war a jox waaye ñun ñëpp àdduna bi yëpp ñoo ko bokk discours Obama wax nga dëgg foofu la ko la ko jëmale mm-hmm. parce que nee na ñun àdduna bi daje fii yëpp bu ñu xoolee tey kii dem exemple la war a nekk ci ñun kooku adressé wul woon rek ci africain yi mais euh, monsieur le ministre nañu nañu d'accord ni aussi euh, bu ñu waxee àdduna bi Afrique aussi dañ ko ciy jël parce que dafa nekk continent bu particulier Euh, vraiment toujours euh, euh, injustice bi manque de démocratie bi aussi war nañ ko wax du Mandela africain comme ñun bala continent africain je crois que ni leçon même bu Obama c'est universel def mais ñun africain ñun la wara concerné c'est vraiment d'accord yow <laughs> conseil des ministres mhm. wax dëgg yàlla président du ñu wax ñu li ko taxoon a dem wëlbateku woon ñun ne message bi message universel la mooy li ma wax léegi mais ñu ñoo si war a njëkk ñun africain yi nga xam ne ñoo dend ak moom bu war a nekk royuwaay mu teg ci am solo nee jàngale bi mu jàngale suñ ci tënkuwoon ñun ñëpp du ñu am coolo yu bari ci réew mi ñun ñëpp ci africain yi aussi buñ ci tënkuwoon du ñu sori wax li li ma ci teg mooy euh, bu boo xoolee la dama ne may yàllaa ngi commencé ci mu jo mu jox la xel xel moo xam ne loo ci wax ku ko dégg daf naan ngongo teg ci fasaha yenn arab yi xam ngeen mooy lan éloquence am na xam-xam bi waaye loolu doyul yàlla may ko façon ngi wax boo xam ne bu koy wax da ngay li muy wax ñu bari nañ ko wax xëy na fa ko yàlla yóbbu woon ba génnee ko fa moo tax saa yu ko waxee boo ko déggee dafa am lu muy def ci yow dama ko dégg benn bés ci benn rajo yi eh, muy kaf kaf boo xam ne day bëggal xol yi di naatal xol yi mu ne mu ne waa ji eh, journaliste bi su ma fee dama ci jaaxle waaye ne ko lu tax mu adduna dama ci def yu bari yoo xam ne yaakaaruma ne neex na suma borom waaye kii di laa ci yaakaar mu dimbali ma ci yoon wi sinon yoon wi dina jafe mu ne kon mu ne ko des moom su ma xariti góor gu màgget gii moom mbiru yàlla rek lay wax xanaa dina ma ci dimbali muy loolu muy li muy génne ci tànkam muy humilité ci àddina également ak di nangoo teg boppam foo xam ne fii bu ko nit ñi yóbbu def ko ci position boo xam ne presque bu dundoon beneen jamono dañ ko jaawale yonent xëy na hmm. moom daf koy bañ boo ko fa bëggee indi rek mu rocceeku wan la ne man mii man de laa ab mortel laa kuy juum laa kuy nag jum jum yu métti dem na benn juum naa ci li nga xam ne téye naa ko sumay famille ak su may doom ak sumay jabar hmm. su doon tey lu leen démbal du ma ko def néew na nga gis suñu borom kër guy xam nga bu ñu wax nguur gi rek ak ak ak dirigeant yi hmm. nañu wax aussi chef de famille yi chef de famille booy nangu fekk mu toog mu naan juum naa ni yore woon suma njaboot sumay jabar ak sumay doom bu tey doon démb duma ko def loolu itam ñu war nañ ko seet foofu kon li wax mooy buy wax ni gid guide lay waxee yaatu na président guide la député bi guide la chef de service bi guide la naka la ñuy royee ci moom ba suñ dund ak ni ñu nekkee ak ni ñuy doxalee li nga xam ne moom la ñu doxal ko doxal bu rafet bu mucc ayib wax ji dafa wara dem ba foofu hmm. mais damay ragal rek ñu circonscrire ko ci président de la république bi wara a roy ci mom au delà de mom nañ wacc ba ci souf ba ci suufaa souf ku nek jéem a roy ci parce que lu bax hmm. balaa ñu yegg ci Mandela am na ñu ko do am fi comportement yoy ndax am nañ comportement yoy hmm. yi nga xamné ne sëñ Aj Malick si jàngale na uh-huh. yi nga xamné ne Ahmadou Bamba jàngale na ko ndax ñu ngi koy am

ba ci imam yi dañ ko yàgg wax fi ci émission bi. ma juste imam ma teg dama mos dem seeti Abdou Aziz mi fekk ma ngi bind ben livre. ci une démocratie prise en otage par ses élites. Mune ma yonent ci boppam dafa wax mune. yonent yi nga xamné ne ñoo fi nekkon buñu démé guide religieux yi waxul chef religieux de. ñoom ñooy continuer mission yi nga xamné mom moom la ñu yàlla dénkoon te ñoom ñu dem. mission yi nga xam ne yàlla moom la dénkoon yonent yi dem guide religieux nag dafa lu bari muy ca tànkee muy doxee na muy waxee na muy jëfee ak fa muy nekk suñ ko fa fekkee du am loo xam ne dana ci ruus moom ka nga xam ne moo tax muy wax bu demee yër la mu bind ndax la muy def dëppoo nag la nga xam ne moom la moom lay wax ci li bëggoon wax ci loolu rek mooy euh, guide mooy ki nga xamante ni bii li muy wax wóor na ko ni lu baax la ba pare itam daf koy def kooku mooy guide différence ak dictateur mooy dictateur day wax day digle lu baax ba pare moom bu ko neexee du ko def mais kii guide moom yoon wi muy xàll moo ci jiitu su ko defee nit ñi nit ñi topp ko ci ca euh, noonu la mën a demee parce que noonu la ko yàlla bëggee moo tax mu yónnee ay yonent yàlla bi mu yónnee yonent yi dafa dindi ci ñoom lépp loo nga xamante ni bii dafay tax nga mel noonu c'est-à-dire euh, xeeb nit jàpp ni nit ki man maa ko gën lii mooy digle lu baax mën naa ko bañ a def mais imposé ko keneen ki yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne bi yàlla daf ko jëm ci yonent bi mm. bon ku bëgg a nekk giit itam il faut nga dimbil sa bopp yooyu man de laa gis naa ni yéen ñi nga xamante yéen moo gën a xam wana ngeen ci moom loo xamante ni bii rëyul ah parce que njiit du rëy ku yaatu la nit dafa war a yaatu am vision bu bu bu yëpp bu war a jaboote ku am fit la itam ak fulaak fay la hmm. parce que bu loolu amul woon kon tubaab bi dana ko vaincre am fulla ak fay la bon gëm li nga xamante ne bii moom la doon def ba pare itam di ko def ñu koy gis ñu koy gis waaw c'est-à-dire défi bi yëpp loolu la défi bi mooy euh, di wax loo nga xamante ne bii doo ko def foofu la problème bi nekk. te loolu yàlla moo ko njëkk na a ataamuruuna naasa bil birri na tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaab yàlla mu ne pourquoi ngeen di digal nit ñi ak mbaax. te du ngeen leen ci jiitu. waaw jàngoo donc donc donc. Euh, balaa Fatou nga may ma. Euh, si point bi balaa ñuy euh, balaa ñuy balaa ñu koy tëj. Mm. balaa ñuy tëj point boobu. Mm. xam nga en fait problème fondamental bi moom mooy ki nga xam ne dañ ko dénk. Mm. bokkul ak ki nga xam ne dafa moom. or suñu njiit yi dañ leen dénk moomuñu léegi bu ñu la dénkee je crois que exemple bi ñu mën a jël ci Mandela bokk na ci ni d'abord li ñu koy dénk bi ñu ko ko laata di dénk dafa poser ay conditions parce que boo ji boo jàngee li mu bind. dafa xam ni moom benn mandat lay def. narul woon sax bëggul woon sax jël. dafa bañoon ni du du du jiite. ñu euh, ñu ñu ñu ñu négocier ak moom ba mu nangu mais du def ñaar benn lay def loolu mooy xam na ay limitam xam na ba fan la mun a yem xam na ay limitam te xam na dañ ko dénk fu fan laa bëgg a yegg si si alxuraan euh, alxuraan dafa wax ne bu leen wor yàlla wor yeneent bi wor ñi leen dénk li ñu leen dénk eh, imaam sànq dafa wax ni li ñuy tuddee nguur man souvent baatu nguur dama bëggoon ñiy jàng wolof ñu defaat ci tuuti liggéey mais li ñuy tuddee nguur parce que moom la ñu am comme baat imaam dafa wax ni kenn du ko jox sa bopp yàlla moo la koy jox moo tax yàlla ni bu leen wor yàlla parce que Amana, c'est un dépôt de confiance bu ñu la jox dépôt de confiance boobule dafa ànd ak une feuille de route mais nit ñi la ko jox aussi dafa am lu ñuy xaare yow maintenant ñu dénk la nga moom moom mooy yow da nga naan man damay toog ba jeexal su ma jeexalee jox da nga def donc la leçon que l'on prend pour man Mandela parce que leçon nous ko jël ci ñëpp mais comme mon teew mhm. moom mooy justement que nos leaders et nous aussi les populations dañu am fulay ñi nga xam ne dañu leen dénk bu ñu buggee xaabaabal dafa ne ñoom ñoom ñooy seet ku ñu koy jox. Mhm. bu ñu fi jógee. Mhm. ñun ñii population yi ñu tax ñu taxaw ñu taxaw taxawaayu suñu yëf la dañ koy jox ki nga xamante ni moo ñu moom la ñu wóolu. waaw defe naa loolu sénégalais xam nañ ko léegi loolu loolu mooy lu ma bëggoon a yokk. loolu sénégalais xam nañ ko bu a baax. <laughs> <laughs> Fatou. ah li ma si bëggoon yokk. Euh, hmm. toujours si poñ boobu noonu mooy ne soo xoolee Mandela tamit leneen li ñu si mën a jàng kenn mënu ko chantage. te suñu dëkk yi chantage bëri na fi. parce que léegi ñu ne ah dañ ma signé loolu yi xam nga suñu doole yemul woon noonu parce que mënuñu woon bañ pression bi man dee chantage nañ ko lu bëri utiliser nañ ay mbokkam bu ñuy créer Bantoustan yi jël leen def leen ci kaw pour rek mu jéem a sede mu taxaw fippu daal di presque bàyyi ay njabootam ay cousin wam ñu ëlbatikuwaat si loolu man dee la plusieurs fois daan nañ essayer di jaar ci suuf pour mu am ay accords yu mu mën a def ak ñoom suñu ñëwee mu ne leen man représenté wu ma ANC du man ñun la je que ñun boobu noonu mhm. moo jafe si suñu dëkk yi tey boo ñëwee ngeen bokk dara ngeen di xeex pour benn idéal bu ñu demee ba mu xaw a confortable ñu commencé duñu ñu nangooti bokk benn et que Afrique lu tax man ma bëgg a circonscrire ko toujours si Afrique parce que ñun ah, colonisation bi esclavage apartheid yëpp dafa wàññi woon suñu dignité génnee suñu dignité yëpp ñu restaurer suñu dignité ba am suñu indépendance après cinquante ans moo tax ma ne monde bi yëpp la concerné enseignement wam yi mais ñun Afrique la war a gën a concerné parce que li ñuy dund ñàkk fii la gën a tare violation droits humains yi fii la gën a tare injustice sam fii la gën a tare te ñun ñoo koy tegante loolu moo tax ma ne enseignement Mandela yi ñun si la ñun ñun ñoo ko war a gën a jël def ko suñu boss deug la xamnañ injustice yi am ci aduna bi. sur le plan économique sur le plan foo dem ñu lay fuyee di la xol bo nekkee ministre France sax bo amee dër bu ñuul do fa tekki dara lool yépp xamnañ ko mais je pense que Mandela ñun Afrique daf presque fa restaurer suñu dignité té lool nak dañ ko wara saisir ci année bi ñu nekk ni 50 ans yi pour ne mm-hmm. nag dinañu fippu ñun ñëpp pour ne Mandela limu fi bayyi nit ku ñuul du toroxati kenn du ko gisati. di sëgg nit ko ñuul day nekk ci kaw comme la num ñu ko wanee ak li mu jaar yëpp ñu bëri jaaruñu si te terewul taxaw na garde dignitéem garde ne fii sama peuple ñoo ma fi teg comme lu euh, maître wax sànq nit ñi ñoo ma fi teg te donc du ma ñëw ba dem ba ci kaw commencé di leen fàtte damay continuer di leen xeexal ci ni ma ko mënee bépp ma demee ba nga xamante ne nag gis naa ne lii contribuer naa ma daal di retiré wu bàyyi ñeneen ñi nga xamné ma maa ngi ñoom ñoo bokkoon xeex bi ñom tam ñu daal di wane li ñu mën je pense que lolu yëpp boko gissé man enseignement bu mag la ci Afrique alternance bañ ñu bañ yomb ñu lay chantage pour que nga daal di bàyyi say nawlé pour dem ci dara ba paré aussi ñuy def ay accords secrets Afrique dafa bëri lolu tay bo xolé Congo so xolé dëkk yi da ngay ñëw ñu tek fa ben dirigeant ñu daal di lay manipuler nga daal di signé yoo xam du jëriñ dara sa askan loolu moo tax man Mandela dafa important parce que Mandela dafa bañoon signé dara loo xam ne nekkul intérêt peuple am c'est vrai que nag après négocier na pour am paix en se disant que bu ñu investir ci éducation bu ñu amee jàmm dans le long terme nag il faut que équilibre économique am te loolu tamit xam na ne du noonu am noonu mais génnewu ko ci plan bi daf ne nag ñi ci des xeex leen man indi naa góorgóorlu naa ak yéen ba ñu am démocratie politique fi mu nekk nag suñu beneen plan bi mooy ñu rééquilibrer l'économie. Mm. loolu nag mooy défi Afrique du Sud pour suba. Mohamed waaw Mohamed. damay damay damay damay euh, dem fi mu wax. Mm-hmm. parce que man damay damay xool toujours euh, Manière de mus fasciné. Mm-hmm. Euh, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné j'ai même mm-hmm. écrit ci moom loo xamante ni Angleterre laa ko bindee et ça a été primé. dem naa ba visiter prison ba fi mu nekkoon ci cellule donc damay xool toujours ci vit. mais dama ci gis parallèle yu bari avec euh, le Coran avec la vie du prophète xam dafa am un verset du Coran euh, où il dit il dit au prophète quand tu prends des décisions pour la cité consulte le peuple consulte le conseil consulte ça avec qui tu es Mandela quand il a pris le pouvoir il véhiculer loolu daf ko fait. c'est-à-dire que je ne mu pas def d'ailleurs discours am soo dafa wax mom mo taxaw di wax mais ñu bari avant mom xeexoon nañ pour li am bi mu togué également ma ngi lire ben livre bo xamanteni ni dañ ko bind ci euh di wax ni mu doxalé ak le pouvoir africaner pour bëgg jàmm am Afrique du Sud kenn ci ay directeur de cabinet moko netti mu ni bi Mandela ñëwé pouvoir mom mo nekkoon directeur de cabinet de Klerk dafa doon préparer ay valises pour dem Mandela ni ko lu tax ngay defar say valise mu ko dama jàpp ni sama mission jeex na mu ne ko xanaa doo sud africain mu ne ko enquête mu ko man président sud afrique du sud la sa réew daf la soxla da ngay toog nga liggéey ak man mu toog liggéey ak moom dafay dafay firndeel li ni wax léegi ni que moom musul jël pouvoir personnaliser ko benn beneen bi musul am clivage li ñuy wax waaso ñëpp la boole woon ci li mu doon liggéey chaque jour daf ko def également luma luma luma luma important ci pouvoir ba commencer wat vie civile La fondation bi mettre en place c'est la ko man chance de lancer la fondation bi mais liggéey pour te montrer que je xamone déjà que euh, ku bëgg veux réew jëm ci avenir say xalé ngay ngay ngay ngay toppatoo. et ba bu mu fi génn lolou daf ko daf ko daf ko def ben credo di ci dox di ci wax. Mm. je pense que dirigeants africains yi. bu wéso lolou manam ñu jël Mandela rek comme exemple amna ay euh, fait yu constant ci ci dundam ci ay fait yo xam def nako mm. lo xamanteni c'est des politiques. monsieur le ministre El Hadj xëy na loolu ci dina ci dina ci xalaat. mais c'est des politiques. à mettre en place. Ah. pour que ñu bañ a wax rek ni que defoon na lii mais on peut les concrétiser les mettre en œuvre du coup Dundu, tout de suite. donc là, je bëggoon a yokk ci ci point boobu. fo minute moo de dese film, mu ne. fii Mouhamed mu jële consacré fanweeri minute yi. Euh, fille qui ci Sénégal boo ko seetloo ñun contribué nañu trop ci dundu Mandela am na lu bari lu ci def boo jëlee Senghor ba ci Macky parce que boo jëlee Senghor monsieur le ministre fàttaliku na euh, ci doorte waxam temps y ñun bokk ci bureau même ANC fi ci Dakar jox passeport diplomatique reconnaître lutte Mandela contre l'apartheid Abdou Diouf gën ko renforcer ma ngi ban je journaliste au journal télé au journal président président Abdou Diouf bi euh, secrétaire général de l'UA organisation de l'unité africaine l'on woon dem na survoler la ligne de front Botswana Soweto yoyep pour wane ni Afrique mënul am division warul am cassure maître Ablaye Wade ñëw dugg ci siège bobu Macky Sall ñëw moom présent même Afrique du Sud ci obsèque Mohamed wax na est-ce que ñun fi ci Sénégal fofu lañuy clôturer suñu émission leçon yooyu ñu mu bayel nu naka nga ko gisee par rapport ak suñu doxalin Imam Mbaye waaw euh, leçon yi Mandela bàyyi ak suñu doxalin laaj na méngale euh, su ko defee euh, ñu jéem a xool yi nga xamante ni bi dëppoowul ak yoon dëppoowul ak liy dimbali askan wi pour mu suqaliku su ko defee loolu ñu jëm ko corriger loolu daaw askan rek comme ni ko Abdou Latif mais nit ku ci nekk acteur nga ci société bi te sa jëf itam am solo donc évaluation bi d' abord individuel na nekk lu individuel man dama jóge ci benn réew bu yàggul nii rek Indonésie ko ma gis euh, discipline ba fa nekk ñoom ñu baree bari dañuy dawal foofu ay moto mais mësuma gis kenn ku dawal ca saluloo casque même ki ngay supporter da ngay gis ñu nekk parce que moto yu gudd lay doon dañuy casque fii bi may ñëw léegi ñi gis ñu dawal moto yëpp kenn takku ci casque pourtant am na benn loi benn décret bu ñu signé pour loolu ci liñ lay wax nga takk casque pour sa njariñ la du njariñ ki la koy wax parce que boo takkul casque daanu da ngay am problème fi mu nekk nii euh, rang pour rang rek problème la da ngay rang da ngay gis koo xam ne day ñëw teel rang am koo xam ne day ñëw léegi jàpp ni moom moo ëpp priorité ñi fi nekkoon jéem a dugg fi génn fi donc yooyu ay pratique la yoo xamante ne bii euh, il faut que ñun ci suñ bopp

jël dara euh, bokk ko ak nit ñi boole leen ci dafa am solo boo nekkee ci pouvoir bi nga nekk euh, njiit ña la jiital il faut que ñu sentir seen bopp soo bëggee ñu naw la yëkkati la ca la ñuy def loolu Mandela doon na ko def comme ni ko waxee yàlla moo ko digal yonent bi mu koy def mooy mooy di waxtaan ak nit ñi di diisoo ak ñoom ci décision yi nga xamante ni moom ngay jël pour que ñoom ñu gis ci seen bopp ba di ko mën a appliquer li may tëjee rek pour jox la kàddu gi. Mhm. parce que c'est important ñëw nañ ci ba ba sonn mooy euh, pouvoir cest à bëgg gii nit bëgg pouvoir dafa war a ànd ak euh, sago dafa war a ànd ak sago te liy tax nga ànd ak sago ci bëgg ngay bëgg pouvoir mu wóor la ni pouvoir bi yow joxuloo ko sa bopp yàllaa la ko jox. parce que bu fekkente ni woon man ngaa dajale critères yëpp tànn ca yu la neex ni moo nekk ci man moo tax ma am pouvoir bi da ko fekk yu ëpp loolu ci keneen. te yàlla joxu ko mu jox la ko yow. bu la ko yàlla joxee itam durée bi nga fiy toog yàlla la aju ajuwul ci yow. ajuwul ci yow. yàlla mooy décider ni yow 5 ans nga fiy def yow 10 ans nga fiy def te bu 5 ans yi jotee boo bëggul dem. yalla ne dama koy dama koy nangu qul illahuma maalikal mulk tuutil mulk man tasha wa tanziu la wax bu koy bu koy joxee daf ni dama koy joxe doucement mais mais boo <laughs> après dama koy dama koy arracher dama koy arracher donc donc donc donc nit ki di di di travailler pour rester dans le pouvoir dina ko yóbbee muy def ay musiba te c'est inutile parce que mënuloo travailler travailler ba def fi lu ëpp li yalla dogal Mhm. donc li yàlla bëgg bu la joxee pouvoir ma koy répété parce que c'est important. Mhm. mooy nga exercer ko ci image am moom ni muy exercer pouvoir ci maanute ci maanute ci ci ci li ngay wax nit ñi. Mhm. nga di ko def. yàlla moom moom lépp mais da ngay wax léegi léegi ma wax inna di utiliser pluriel ñun buy wax ñun loola da ciy boole malaaka yi ak ñi nga xamante ne ñeneen la. am fa muy waxee man kese. bon donc ñun bi c'est important. Ah. waaw nit ki moom kese mënul dara amul kenn ci aduna bi ko xamanteni bi hmm. ak quelque soit pouvoir yi la denk hmm. yow dong nga mën def lepp lepp lépp waaw waaw Imam Mbaye Niang jërëjëf sa wax boobu. Euh, ñun observateurs yi dañu constater ni moment yi ñu toll fii ci Sénégal sa wax boobu dafa nekk wax bu nekk d'actualité. Hmm. inventé wu ma dara président de la République ci boppam mooy véhiculer message boobu. tàllal loxo boobu ngay wax mi ngi koy def woote waxtaan mi ngi koy def. dinañ ko gis ci dinañ ko dégg ci waxam gis ko ci ay jëfam donc mu nekk loo xam ni temps yi actualité la fii ci Sénégal monsieur le ministre. waaw euh, dafa am question bu am solo boo laajte ci njëlbeen ba oustaz ni tontu. Hmm. nga ne ndax ñun li nga xam ne Abdou si doxee nañ ko. Hmm. ndax mën nañu fi jàng ay leçon euh, soo xoolee histoire du Sénégal ñun buñ ci jàngee leçon ñu ko gën a gaaw mokkal ñeneen. parce que li du Sud ak ni Mandela na Senghor Mandela parce que bu a fait fin des années 60, début 70, Senghor, Senghor moom Houphouët Boigny président africain qui été en nañu dialoguer africain du sud blanc

di ci diisoo ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci xeex bi dama dégg keroog ci tele bi Mohamed Kataza parce que bokk na ci ñi nga xam ne ci kàngaam yu mag ñi nekkoon ci ANC la mu nettali Mandela bi mu dalee Coetzee ministre de la justice bi ñu waxee ba pare Coetzee da ko wax ne bu mu ko nettali gaayam yi Mandela ba mu génnee foofu lu mu njëkk a dem mooy dem seeti gaay yi ne lii laa fa jëlee lii laa wax ak moom moom ci boppam dafa tontu loolu nee na li mu bëggoon gaayam yi xam ne dafa amul benn objectif té amuloon beneen muy nation arc-en-ciel nee na pare woon na ci lu parce que nee na nit ki boo négocier té yow ci sa bop changé lo do am dara il faut nga changer bo changé nangul kenen ki limu mu nekk reconnaître ko ci dignité, mëna tok ak moom waxtaan mais loolu ñu dañ koy pratiquer fi Sénégal parce que so gissé alternance politique de am ci réew 1960 be fi ñu yex si chef d'état bu remplacer sa morom dañ la fal ci carte war nañu jàngal lu bari kon bokk am na loo xam ne nag war waruñ ko xeebal suñu bopp culture politique wu réew mi la te dañ ko war a sàmm nag sàmm ko mooy def li nga wax lépp loo xam ne lu baax la ñu gis ko feneen mën ko dugalal suñu biir mais buy xeeb lu ñu am de ce point de vue ko bokk nag d' abord c' est l' histoire du peuple histoire u réew mi la histoire u politique yi fi jaar la comme commencé ko ci Senghor jaar ci Abdou Diouf ñëw ci euh, Ablaye Wade yegg si Macky Sall loolu dañ koy nangu bu ñu ko nangu ba pare ñu xool li nga xam ne moo ñu mun a avancé loo hmm. tekkiwul ne tey jii nag ci suñ bopp bu ñu xoolee ni ñuy doxalee amul loo xam ne war nañ ko mun a taxawal tey dugal ko suñu attitude moom soo benn xaritu oustaz mun na ma nit bu doon gis xam ni ko yàlla di joxe pouvoir du am jaaxle ndax dina ko ñàkk ndax du ko ñàkk parce que mën nga toog ci àdduna dem yàlla jox la pouvoir xëy na yow sax doo ko xalaat fa mu ñëwee hmm. gis wax te buñ ci jàng lool rek duñ sonn ci lu bari parce que lii problème mu africain yi ak ñeneen réew yi mooy naka la ñuy fexe alternance am am na ñu bari yu jéey yu fay am lool la boo ko réussir benn yoon réussir ko ñaari yoon war nga mën am yaakaar ci sa bopp war nañ góorlu nag parce que au la politique bi société bi aussi war nañ ko questionner. suñu hmm. société aussi war nañ ko questionner. Hmm. parce que au fond njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw mais émanance su ci société bi lañ jógee dem ci kaw cest boo demee ñi nekk ci kaw mooy ñi juddoo Grand Dakar ñi juddoo kon Fatick mhm. ak feneen ak feneen nañ leen yare ak seen histoire yegg ca kaw kon boog mënuñu seppi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw royukaay lañ war a nekk mais suñu société aussi aussi dafa am yoo xam ne fa mooy comportement yooyu dafa am benn jàngkat bu am solo boobu dama ku xalam di ci jaayu mooy affaire gouvernance hmm. benn américain mu ne gouvernance su réew boo ko bëggee xam da ngay questionner pyramide de gouvernance bi nee na pyramide de gouvernance ca kaw dañ fay fekk gouvernement ak administration mu ne boo dee rëkk ci suuf rek boo wàccee fekk représentation nationale mooy parlement ñoom imam nee na boo wàccee nga fekk magistrat yi avocat yi ñëpp te suufa suuf nag nee na foog ngay fekk société bi mu toog nee na xool na muy amee interrelation ci diggante stade yëpp pour xam ban gouvernance nga am xam lu njëkk ci réew bi bu ñu jàppee sa mbokk la ngay njëkk xeet xalaat du da ngay jëli Mohamed pour bu plaider ko kan moo xam magistrat diw kan moo xam diw est-ce que sëñ bi xam na ko loolu la njëkkee doo dégg mukk Mohamed a ngi toog yore cabinet ñu ne nañ seeti avocat bi dañuy njëkkee mooy amuñu luñ fay Mohamed kon nañ seeti koo xam ne day régler affaire bi cest à société boo koy analyser da ngay xool lépp comportement bu nekk nga xool ko xam nga affaire yi accident yi gouvernement bi guddeeg bëccëg mu wax ci conseil des ministres fu ne da dama da damay dox démb dawa suma oto gis benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw yi si diggu tali bi saafaanoo nii c'est-à-dire waxtu wu ne accident mun am même li lay jàngal ci sa ci sa sa bopp mu ñun ñu nekk fépp gëm muy catholique bi ak musulman bi li lay njëkk a jàngal si jàngal si diina mooy moytu àq sa dëkkandoor. discipline la discipline. ku dañ ko am. Hmm. dama yàlla baal. waaw ah. des koy am de. waaw kon njàng mi nag. <laughs> waaw mu ngi noonu daal. mu ngi noonu ah je que ministre moom li mu wax am na solo parce que tënk na lu bëri. Mm-hmm. Euh, li ma bëgg a peut-être yokk ci affaire institution yi. je mm-hmm. pense que soo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal. balaa ngay xam lu mu am nga génn ci biti wala nga nekk ci yeneen dëkk yi ñu wër nii rek nga xam da ngay dem si yenn dëkk boo xasee ba génn ba yegg si Sénégal damay am ak sama yenn xarit ñu de dama mel ni dama nekkoon ci turu loolu la ma wax mhm. dama yegg si Sénégal rek mel ku féex di respirer lu mu na am kenn ku ne ma dafa am dëkk buñ fa sa xol day tout temps nekk lu tax dafa am benn genre culture de l'impunité surtout Afrique sax bu fa nekk boo xam ne yow boo nekkee nit koo xam ne am na dara daal looy ressentir ci justice doo fa mën a toog toujours nga gis ay cas d'impunité yu si si côté yëpp nag comme li monsieur le ministre wax sànq nga gis koo xam ne dafa tooñ diggu bëccëg mu génn ci facilement du jaar fen sax day ñëw tooñ la te dara du ci génn nga koy dund di ko dund yooyu moo nekk si suñu dëkk yi nekk boo xam ne di nga gis ne dëkk bu mel ni Sénégal am na ay institution mais li ma gis tam mooy ne am na dëkk yoo xam ne Sénégal moo leen raw lu si lu bëri mooy que fii nit ñi lu leen naqari dinañ ko mën wax te loolu boo ko xasee ba mën def rek déjà am nga benn yi beneen bi mooy alternance politique bi loolu moom nekk na réalité léegi kenn mënatu ko laam-laamee et eh, ku weddi laaj si suñu dirigeant yi. Hmm. mais je pense que li manqué maillon bi manqué te loolu nag moo mooy solidifier peut-être. je dirais que le bu Sénégal ñu York ko ci peut-être Mandela référence bi mm. Sénégal du Afrique du Sud ci yu mm. que institution ñu Afrique du Sud comme li mo wax bi Mandela les les institutions du chapitre 4 kenn du len laal mm. def ay lañu affaire droit des femmes ko parlement bi mu jox c'est vrai vrai que a un effet majoritaire parce que comme le PFN, fenn boo leen di disoowee di nga faral sa parti mais au moins am nañ indépendance institution yii di saytu euh, gouvernance yëpp parlement ba mooy mooy du dem jox rapport président parlement la ñuy dem défendre seen rapport défendre un budget hmm. yooyu yëpp créé na pour yokk la démocratie ba ba pare nag cour constitutionnelle ba nekk na cour constitutionnelle boo xam ne ñeewul dara cour constitutionnelle yi nekk si parce que day àtte. c'est une décision boo ko gisee di nga xam ne ñii ay yoon la ñuy àtte bi aussi seen ay élection day mel ni day jaar yoon du discuter ay fichier du ñu discuter ay yenn ay détails du ñu discuter am na yu bëri fi mu ne dañ ko dépassé. Mm-hmm. loolu tamit lu am solo loo xam ne day toogal ak yi ñu am mooy ne peuple bi yeewu na fi gouvernement yi xam nañ peuple bi lañ fi nekkal au moins carte bi mais je pense que li ñu war a investir pour que Sénégal gën a joxe modèle gëna encourager yeneen dëkk yi sous région bi finaliser la réforme des institutions mais dans un cadre boo xam vraiment day consolider de manière définitive les acquis démocratiques ba pare du am laam-laame ñu génne si affaire politique def ne dañuy def ay institutions yoo xam ne dañuy durer cent ans comme ni ko yeneen dëkk yi je pense que loolu ñun buñ ko amee rek ah. suñu xol dina sedd parce que dinañ xam ne Sénégal dina nekk nag dans la vraie voie de l'émergence parce que détails yëpp dañuy ci génn hmm. jublu nag ci bi parce que bu institution yëpp dëgëree base bi am gouvernement yi wane na ñun institution yi rek la gëm population bi dañuy suivre discipline boobu ñuy wax parce que nit ki tamit day mën a am ay passe droit bu sentir ne mën na ko def mu essayé ba amul da ngay gis ne bu yàggee dina mhm. dina dina arrêté ah. mais bu fekkee te ne institution yi ñi jité tamit bëggu ñu dox wala bëggu ñu dëgër population bi tamit day out ay passe droit ce qui fait que ne day mel luy arranger ñep dal té lool tamit du nekk dal suñu suñu sac bu Mohamed paré ma ministre delloo la kàddu dox monsieur le ministre waaw comme comme temps bi ñu deseewul euh, man dem bëggoon ñu ñu xol également touti mhm. ci euh, li nga xamante ni peut-être mom lañu wara war gën jël ci li ñuy wax euh, euh li Mandela bàyyi mhm. parce que man dama japp ñaari mbir yu la commission euh, réconciliation benen bi lañ le Black Empowerment Act parce que l'Afrique du Sud à partir de l'économie, il faut balancer mais si l'Afrique du Sud nous des raisons de s'inquiéter euh, dëkk bi ni a mel pourquoi parce que ba tey doole ji tubaab bi ko yor criminalité bi ci nit ñu ñuul ñi mi ngi yokku euh, ki mi ngi te Mandela muy euh, tabu Mbeki muy ki fi et Mandela man damay ni euh, c'est un saint bañ na ko chance bi mu ni mu meuna a jàkkaarloo ak le euh, l'ex pouvoir blanc les africaneurs ba ñom ñu am ci mom confiance Ni ma gis ñu yor Afrique du Sud tey xalaatuma ni am nañ lool donc je pense que ñun africains yi ak ñom sud africains yi war nañu xol nak la def ba li fi Mandela bàyyi bañ a nax say parce que ni muy doxee tay actuellement bu continuer ragal naa ni violence mën na fa juddu ça va être des violences yo xam du yomb a régler mm. loolu tam japp naa ni lu ñu taxaw la xol ko xool peut-être prévenir mm. C'est extrêmement important. C'est important de voir parce que même si l'Afrique Afrique du Sud boo fa venir, nii reproché Mandela ni il s'était beaucoup plus consacré au renforcement de la démocratie que de faire économie réew mi dit que ñuy wax ni sax euh, regretté loo xam ne fait. bëggoon na ko def te yàlla mooy mu def ko di ci fi noir yi dëkkoon mu metti lool daana def tout pour transformer ko mais xaj na santeem ak jotam mayu ko woon mu mu def loolu léegi nag li nga Mohamed wax aussi dëgg la ñu bari ñu ngi inquiété wu di poser ay questions l'après Mandela ñu bari naan l'Afrique du sans Mandela moom sax la ñuy wax léegi loolu loolu dëgg la mais dama bëgg jox kàddu gi waaw waaw waaw monsieur le monsieur parce que Fatou amna ñu yu mu junj. waaw voilà man sax ma la ma la am na bu ma ci. waaw parce que dama waxoon di actualité bi jamono bi moy lolu ñu observatoire lolu la ñu constater d'accord Fatou wax réforme des institutions bi. waaw mu gaaw ak ni ñu ko war a d'accord euh, man d'accord naa ci li Fatou wax institutions il faut ñu dolel len taxawal len mais benen dimension da fa am ci affaire bi. Hmm. xam nga Afrique du Sud institutions yoy muy wax am nañ fa fi mu nekk nii tey mais terewul jaaxle ngi am. jaaxle dëgg-dëgg am nañ dama lay jox benn firnde àdduna yëpp ñoo taxaw ci stade boobu barki démb président Jacob Diouma jóg ñu koy yuuxoo di ko bravo xam nga ko jàngul ci lool jàngoo dara hmm. dañ ko jàng bu baax ah lu tax ñu koy bravo xëy na am na yuñ ñu koy reproché te terewul institution yi faatu di wax ak nga fa institution yi dëgër nañ lool mais am na lu bari lu ñuy wax ci président ba fa nekk tey dëgg la loolu moo au-delà des des institutions comportement individu bu ci ak attitude bu mu nekk ak rapport bu mu ak institution yi xam nga institution balaa muy dëgër dëgg culture bi intégrée ko mais tant que culture société bi intégrée, wu ko mais doxal ko na mu war a doxee institution yi dëgëraguñ nañu ci mais yuuxu yooyu dafa am lu mu tekki ak lu mu wund ci biir Afrique du Sud te bu ñu ci taxawee d'abord ñàkk discipline a ngi ci ñàkk war maa ngi ci te loolu du lu baax ci Afrique du Sud dafa am loo xam ne ci dund la daf ko doxal man ma gis ko ci benn mbir boo xam ne bii daf ma yëm ba tey mooy koo xam ne dafa am kàddu baatu démbam nekk baatu teem te du wuruj te day fàttaliku démb ci njiit lu am solo la dama nek États-Unis mu ñëw fa visite première visite am mu ñëw États-Unis journaliste bi gëna mag États-Unis Ted copel lañ ko doon wax bobu dem na be Bush proposer ko pour def ko secrétaire d'État mais mu bañ Ted copel invité ko ci benn soirée bu ñu wax naaj daan guddi lay génn Amérique yépp a koy seetaan bi ma ne la ne jëmm toog di waxtaan ak ngóor suusu addina bi yëpp a ko doon seetaan keroog la ma naw ci moom mooy fayda gi mu am mooy li may wax ak tey gi mu am teg ak xel mi ko yàlla di ruuf dafa teg waa ji ne jàkk ne ko Mandela mu ne ko yaa ngi toog tey fii nga ñëw Amérique la nit ñi soxla nañ la fi lool mais am nañ jaaxle ci yow mu ne ko jaaxle boobu mooy lan mu ne ko mooy xaritoo gi nga xam ne xaritoo nga ko xaddaafi di demlante moom di ñëwlante moom mu ne ko loolu leen jaaxal yéen Amérique mu ne waaw mën naa leen wax lu tax ma xarite moom te jàpp xarit boobu ba ma nekkee ci guuta suma peuple ñu noot ko di ko dominer yéen yéen doon jël arme di ko jox apartheid ñu ñuy fetal Kadhafi di ñu jox xaalisam ak ay armam ñu leen ay fetal ñoom ngeen bugguma falu ñëw nekk président tey ngeen ne kooku naa ko beddi sànni ko géej ndax yéen Amérique loolu mooy seen xalaate xaalis seen diggante waa ji tekk di ko xool mu ne ko nangul suma waaye du naa la de yow <laughs> non li may wax nii dafay ne même sax waxtaanu mbedd lay niru mais du waxtaanu mbedd mooy dayo gi nga xam ne moom la àndal ci àddina hmm. ak fayda gi nga xam ne moom la am hmm. àndaloon hmm. lépp looy def ci àddina te àndoo ca fayda ak mët du sotti ci àddina mooy yaa yore nguur yaa lu nekk ci àddina c'est bu ñuy wax rek xam naa lu tax dañuy xool réew ca kaw kawaa kaw loolu normal la dañ koy nangu mais bu ñu yem foofu loolu laa doon wax léegi mooy actualité bi ngay wax bu ñu yemee foofu suñu njàngat rek dinañ réeree mbir ci effort yi ñu war a def suñu bopp pour yegg fi ñu war a yeggal suñu bopp il faut ñuy boole lépp jàpp ne comportement ba nga xam ne moo nekk ci kaw ñun ku ci ñibbi sa kër comportement bu danga ko war a am fa nga jàngale jàng ko bu jàngalekat ba bu ñu lay fay nga war a jàngale da nga war a ñëw jàngale doo dem muy infirmier ba mais c'est un comportement de société globale buñu défé ben benn alal ci koo yem fa rek dinañu réere mbir moom leçon yi nañ ko ñëpp jël rawatina nag dirigeant yi d'accord na ci yéen mais dirigeant ñëpp a cay bok té buñu ñu yaakaar ne nag suñu institution yi gëm naa ne dëgër ci kayit melu nuyu Afrique du Sud yi mais culture bi commencé ci am di intégrer intégré Afrique du Sud culture bobu ëpp la nañu ci fi mu nekk nii man

waa ji am doole ñëw soppi ko man maa ngi woon nekkoon ci parlement ba. tuuti moom fi daaw ji. ci parlement laa nekkoon di bi passé ñaata yoon la fi soppi constitution amoon na fi daanaka. donc donc nit ñi ñoo ëpp solo constitution bi nit ñi buñ ko gëmee dinañ soppi constitution bi ba mu dëppoo ak li xamante ne bi mooy yoon mais suñ ko gëmul quel que li fi nekk ci ay danañ ko jéema a soppi itam ba mu dëppoo ak seen bëgg-bëgg donc loolu mooy problème bi li Abdou Latif wax léegi yàlla moo ko njëkk wax. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla nee na du ma soppi la nekk ci aw askan lu dul ñoom ci seen bopp mu jël initiative bu soppi seen bopp donc soppite gi moom ñun ñëpp ñoo war a soppeeku kenn ku nekk ci ñun nanga nga xool la nekk ci yow ca du noonu nga xeex pour mu deñ loolu mooy contribuer nga pour réew mi développer Mohamed rapidement man euh, li ma mën a tëjee mooy fàttali moom lu mu wax moom Mandela mhm. def ni dundu doomu aadama amul solo ci mu yàgg fi mu ngi am solo ci jeexit gi mu fi bàyyi bu demee. exact je pense que loolu ñëpp nañ ci méditer. Fatou. waaw li may tëjee mooy ne rek euh, lépp nekkul ne pare na sotti na Afrique du Sud. Hmm. dañu am ay acquis moom liggéey na li mu waroon def li mu mënoon. Hmm. fi mu nekk nii beneen phase moo jóg mooy égalité économique te loolu nekk na débat bu am solo euh, Black Economic Empowerment mu ngi koy wax def nañ ko. comme genre affirmative action waaye nekkagul lu parfait parce que amna ay wuruñ yu bëri yu ci am ñoo xamné quelque ñaa critiquer né quelque élite sud-africaine noires rek la le favoriser mais créer na ay opportunités surtout dans le domaine des mines tout à fait Benen affaire bi am moy né tamit ñu bëri kontaanaguñ parce que dañu yaakaaroon né bu jéxé rek seen problème day sorti ñu bo xolé statistiques yi tey li nga xamné progrès amna. Euh, classe moyenne noir af nit ñuul yi mu ngi yokku accès a des des universités yoo xam ne amuñ ko woon mu ngi yokku fi mu nekk li ñuy wax ne de transformation léegi nag am na ay résistance hmm. parce que boo amee sa ay acquis am doole doo nangu ñu ñëw rek jël ko donc dañu nekk ci ay phase de négociation et cette transformation boobu nag moo nekk loo xam ne il faut ñu am leader boo xamante ne euh, du jiitalul intérêt personnel xaalis jiitalul mm. yenen yi nga xamné day tax ñu mën ko ci piéger mm. te je pense que si problème yoy lañ nekk bëgguma dugg ci ay détails mais problème yoy lañ nekk Afrique du Sud ba nga xamné nit ñi ñu ngi commencé di jaxlé né ndax am dinañ am ku melni ni Mandela wala ko xamné dina dox ci ay tankam ba tax li tracel pour deuxième phase bi ñu mën ci yegg première phase bi sorti na presque à 70 parce que am nañ seen institution mais des na lu bëri seen combat monsieur le waaw li li Fatou wax rek dafa dafa doy tëj. Hmm. Eh, bi mu mujjee Afrique du Sud booba léegi juróom-benn weer la eh, man amuma jaaxle ci Afrique du Sud gëm naa ne mën nañ am secousse ay yëngatu mais gëm naa ne aussi dinañ taxaw taxaw Afrique du Sud intérêt Afrique la pour mu taxaw Afrique du Sud moom bu fa problème amee rek Afrique yi yëg hmm. parce que leadership bi nga xam ne ci qu'en 1994 ak léegi amna ko fi ak ni nga xamné non lay xalé yoon continent bo gis dafa soxla leader C'est Europe la vieille Europe mhm. deux pays ñoo les leader principaux Angleterre ak France par le système colonial l'empire colonial c'est eux qui ont développé l'Europe mhm. l'Europe a sombré les États-Unis sont venus l'Occident le leader aujourd'hui c'est les États-Unis mhm. l'Afrique a besoin de ça de ces références et de ces monuments yi nga tiré jambe donc si nous na ñaan Afrique du Sud Tant que tu nga ne Mandela mm. parce que Afrique du Sud presque 40 de la production africaine. africaine la mm. dafa bari. dafa bari Nous, opportunité la. Mm. Euh, ñun nous, nga avons Afrique Mandela lol, lol, surtout. surtout. jërëjëf monsieur le ministre Abdoulaye Aziz Kébé ñu tëj waxtaan bi waaw tëj bi day xam naa ci lu gàtt lay dafa am benn jotaay hmm. ñu di wax ëskay ci biir wax bi ñuy wax ëskay tëral nit naan ko ëskay mu jékki-jékki ki ko wuutu di yéeg pour màggal ko ñu ne ko baraawu hmm. loolu rek mën na tëj waxtaan hmm. ci même jotaay bi ñuy màggal nit ñëpp wër naan est-ce que yi mu am ku yeeg moo ko wuutu mhm. di war a wax ci moom ñu yuuxoo ko li imaam waxoon jëf moo feeñ mhm. jëf dëgg la moo feeñ moom la révélé ku nekk li nga jëf rek lañ lay fay kon ñun en tant qu'africain en tant que sénégalais suñuy leader ñoo leen jiital waaye ñun ñi leen jiital war nañu leen bàyyi mm. bàyyiloo xel seen bopp mm.